Est-ce que l'État a pris les bonnes décisions concernant la dissolution de PASSEF, l'emprisonnement de, de, de, de, Ousmane Sonko euh, ak la gestion de l'affaire Juan Branco est-ce que loolu dafay wane ne suñuy état bi am na une maîtrise de la situation ou est-ce une ou, ou est la face la plus hideuse euh, de la gestion du régime oh, boo bëggee wax ni c'est la face la plus hideuse de la gestion encore une fois damay damay damay bamtu Sénégal yëpp di ko dégg dama ànd ak président Macky Sall juru fukk at ak ñaar lépp lu ñuul ci yoronu réew ma engagé na ma lépp lu yor lu rafet ci yoronam engagé na ma parce que loolooy ngor loolu wéyee gis nga euh, Maïmouna soo jëlee dissolution Pastef benn exemple laa lay jox parce que Juan Branco sax mën naa ko teg nale le doxandéem la fi doxandeem bu sob la dugg ci réew la ko ca fekk fekk ko ci mais boo jëlee di solution Pastef bu ko nit ñaawloo du ñàkk mu ni nangama tax ak nangama tax nangama tax ma ñaawloo ko mais ki jël décision bi kook itam boo ko laajee lu tax mu jël décision bi dina la wax ndax parti bi tudd Pastef ndax wàccoog naag yoonu Sénégal bi ñu teg ci ndodd bépp parti politique bi yëngu ci réew loolu aussi foog ngeen gëstu ko man bañu ma journaliste ci article d'opinion wala ci commentaire mu ŋàññi dissolution bu Pastef bañu ma ko. mais kenn man ŋàññu ma. même rek ma ñëw. ŋàññu ma jàppalew ma. même ma ñëw dama la poser question. waaw ci damay tontu question bi. Ah. xam nga tontu mën na nekk un noir et blanc. dafa weex dafa ñuul kenn du ci jëlee dara te question. heureusement na sont pas des question fermées réponds par oui ou par non moo tax may développer parce que aussi développer bi dafa nekk loo xam ne nii sikku politicien la mooy dafa bëgg a leeral li muy wax parce que day bañ ñu yóbbu ko euh, soo bëggee def man su ma dee def taxaw seetlu te taxaw seetlu bu ma def ba noppi la ba bind ci di dissolution bu Pastef il faut que nga ni parti politique Sénégal pour mu nekk parti politique lan la war wàccook lu bon bon ñaari mbir boo ko doon topp mat na 64 mbir yoo xam ne nii parti bi war na wàccoog moom su fekkee ni dafa nekk parti politique dama ci joxe ñaar yoo xam ne ni dara ëpp leen solo mooy soo dee parti politique di yëngu ci Sénégal sunu loi de 82 81 euh, modifiée euh, en 89 dafa wax ni soo dee parti politique démocratie sénégalaise ni mu tëddee li ko mandargaal nañuy wàccoog moom yow boo dee parti politique il faut na ngay doxale dëppoog li li démocratie rafetlu te ñu dëñëx ko ci loi bi muy benn ñaareel bi mooy il faut yow parti politique bi moom gi Sénégal moom sa boppam ba doo jéggaani ca bitim réew looy dugal ci réew mi te muy lor réew ma loolu bu ko def mukk soo des parti politiques bul waroog mukk les principe démocratiques maanaam démocratie bi nu ñu ko tëggee bul musoo waroog moom mais gis nga ñaar yooyu ministre de l'intérieur mën na ci sukkandiku def rapport jébbal ko président de la république président de la république bu ko jébbalee rapport bi su ko neexee jël décret su ko neexee bañ a jël décret xam nga lu tax muy jël décret ndax rapport bi ko ministre de l'intérieur defal lu bon bon ci ñaari est-ce que parti bi wàccoog naak ni Sénégal ni Sénégal tëgg démocratie ma est-ce que parti bi wàccoog naak ni Sénégal tëgg souveraineté euh, muy moom boppam. et sa réponse mooy lan. sama réponse mooy man taxaw seetlu bi ma ci jot a def taxaw seetlu boobu mooy Pastef jamono yi euh, Ousmane Sonko nekk ci bopp bi di doxal bari na lu mu taxawee ci wàllu démocratie méngoowul ak principe. yi nga xam ne nii moom moo tënk suñu démocratie. cest muy benn loolu lu yomb lu yomb dégg la am réew soo nee man awma lu ma ndax awma lu ma neex kon na ñëpp génn ci nu ñu génne baax na lu ñu def man engagé wu ma ñi tax ma génn loolu rek la engagé kooku dafa waroo principe démocratique au Sénégal. muy benn. muy benn ndax lu tax ndax yow soo nee dañu jàpp sa ñoñ dugal kaso dëgg la gënul soo nee soo nee dañ ma def nangam def ma nangam def ma nangam war nga nag wëlbatiku ni maa ngi baalu àq di tuub di mettitlu ñi ci yàqule moo xam oto lañ ci lakkale moo xam kër lañ ci lakkale moo xam leneen lañ ci lakkale gis nga nga nekk parti politique woote. daje ak fipp bu gàllankoor li keneen moom te nga bokk moom réew mi ngeen yem ci képp loolu se contre les principes démocratiques contre la souveraineté mooy ñu dégg na ni ah am nga ay financement yoo xam ne nii dañ koy dàq ci parti politique bu fekkee ni dafa jóge bitim réew mu nekk sa ndëgër laay kooku dafay nërmeel li ñu tuddee sunu souveraineté nationale bi ci des mooy nga taxaw ni armée sénégalaise c'est une armée de mercenaires gis nga xas boobu ba àddina tukki armée Sénégal du ko baal ki wax loolu loolu aussi bokk na ci li nërmeel sunu principe de souveraineté gis nga ñaar yooyu ministre de l'intérieur mën na ci sukkandiku seeyal parti te bu ci sukkandikoo seeyal parti man Abdoul Aziz awma lu may wax ministre de l'intérieur wala ma wax ko président bi jël décret bi lu dul gàcce ngalam dans cette affaire là waaw bu fekkee ne ñoom ils se sont rendus coupables euh, de certains délits de certains dysfonctionnements concernant euh, le fonctionnement des, des des partis politiques est-ce que am gisoloo leen aussi benn circonstance atténuante waaw circonstance atténuante bi am na xam nga circonstance atténuante bi fan la amoon man jàpp naa ni su fekkoon ni président bu fekkoon ni Ousmane Sonko bi président Macky Sall wootee dialogue national pour ñu waxtaane réew mi tolluwaay bi te suñu koy waxtaanee ka ca ñëw moo xam dafa bokk ci kujje gu tar wala mu nekk ci kujje gu xeltu nite wala sax mu nekk ci pouvoir wàlli si gañ cee wàlli si firiwul ni lu ñu fa wax d'accord nga ci jàpp naa ni bu fekkoon ni Pastef ak seen coalition dañu demoon ci dialogue nationale bi la leen naqari ci réew mi ñu waxtaane ko fa li ñuy diingat ci démocratie ñu diingat ko fa li ñuy diingat ci souveraineté nationale li koy ñàkk ñu diingat ko fa wax seen xalaat jàpp naa ni kon bu ko roogee la ciy tukkee bàyyi xel ñoom lañu wax dana tax état bi du àgg ak seen parti fi mu àgg ak tey seen parti moo tax moo tax suñu wootee dialogue li gën a rafet mooy ki ko sañ a woote su ko wootee na ci ñëpp wàll ji damay joxe benn exemple yow xam nga ni Ousmane Sonko gënul di opposant Ablaye Wade jamono yi mu nekkee opposant mais Ablaye waat li muy nekk nekk opposan di opposant bu am xam-xam xam fi mu jëm mayul kenn dara am fulla am fayda xam boppam saa yi musaana wootee jaloo day dem ca dialogue mais mais mais mais est-ce que jàpp nga ne non quand je dis circonstance atténuante Euh, yow jàpp nga ne ñoom li ñu def jaaduwul. Mhm. mais est-ce que gis nga ci processus bi ne ay mbir yu ñu leen def yoo xam ne jaa jaaduwul walla est-ce que lëmbëj nga li sos loolu yëpp. waaw xam nga da nga wane benn téere xam nga man sama téere yi indiwaatuñu leen. si ñu ngi leen di dugal nañ ko indiwaay. Modou génneel ko livre yi il en est fier. <laughs> j'en suis j'en suis j'en suis plus que fier pour les avoir écrits <laughs> seuls. Il en est très fier génneel ko livre mi. j'en suis d'autant plus fier c'est la production a beaucoup de valeur. génneel nañ la ko c'est la des valeurs. Mhm. Euh, le débat. boo fi jógee na ko jàng xam nga tax nga ko jàng. chapitre bi ci mujj di chapitre 14 fukk ak ñeenteelu chapitre bi. dama ci def taxaw seetlu ci li ñu tudde jihadisme maanaam ñiy fippu ci biir réew di fa indi jëya ba nangu territoire ba pour doxal seen yoon ñaare yoon ba dañ koy duppee yoonu yàlla te booba waroon naa yoonu yàlla ma wax la hmm. am amul fenn fu jihadiste technique la muy jibal yoonu yàlla la xam lu tax ndax benn aaya moo ko tënk te du ko noppee tënk ba àddina tukki afa anta tukriyu naas xata yakunu muminin yàlla moo wax Mouhamed yow Mouhamed dama la yónni ci jaam yi pour nga jottali sama kàddu mais yónni moo li ci jaam yi pour nga dugal leen ci lislaam afa anta tukriyu naas xata yakunu muminin gis nga afa anta tukriyu naas xata yakunu muminin ak lii tax jihaad ñu nangu ko amul benn jihadis bu mën a wàccoog moom ci kaw suuf ci jamono yi ñu nekk moo tax ma def ci taxaw seetlu bu yaatu boo xam dama ko commencé ci jamono yi Mouhamed ak xulafaaw yi nekkoon moom ba ci jihadisme ci Mali ba ni mu euh, janook Sénégal te li des mu dugg fi ba gàllankoor réew mi bareetul laa ci def taxaw seetlu mooy. le rapport avec le PASTEF. le rapport avec le mooy mënoo jeex mënoo xuus ci ni PASTEF bindoo ba lim ko jural mu jural ko ko tey lu dul da nga jàng téere bu def taxaw seetlu bu gën a yaatu li nit ñi wax yam ci. soo bëggee xam lan mooy position Abdoul Aziz Diop dëgg-dëgg ci li jib ci réew mi ci diggante 2012 bi président Macky Sall li ñëwee ak 2023 bi ñu nekk boo jàngee sama téere di nga ci am lu wér loo xam ni du ma ne mën nga doo ko dindi wala keneen du ko dindi mais bala koo kenn dindi sa baaxata ni bàcc ci biti